te xale bi bu fekkee yàlla dafa def docteur bi jox ko ticket ne leen yóbbu leen ko hôpital ndax liñ ñu ko waree faj mënuñu ko faj fii ci centre de santé boo demee ci hôpital ba consultation bi moo xam 2000 francs la 3000 francs 4000 francs 5000 francs ak lu mën doon consultation bi doo ko fay. dégg naa nag ay yàqkat di wax ci rajo bi naan jël nañu ay xale yóbbu hôpital waaye euh, ñu leen dañ leen fayloo kon CMU bi président Macky Sall day wax rek amul dama bëgg mu leer dañu ne ne xalé bi dang nga koy yóbbu centre de santé ba paré boko fa yóbboo bu ko centre de santé bi mënee faj ñu faj ko bu fekkee mënuñu ko faj ñom ñoo lay jox ticket nana la na xale bi dem hôpital bu boba bo démé këyit ji hôpital hôpital do la laaj pour ñu pour ñu faj ko waaye bu fekkee xalé bi dafa socc rek nga yëkkati ko yobbu ko dem hôpital évidemment ya ko yobbu à tes frais kooku sa problème la donc président Macky Sall mu def lu lèr la lu lèr la ci lu lèr la ko teg ci lu lèr lay doxé ñu ne ko président ndax fële jeexee mu né dess na ñu ne ko lan mu ne mag ñi am juróom benn fukki at jëm kaw nguur gi fi nekkoon daf fi indi woon li ñuy wax plan Sésame muy loo xam ne pour faj faj mag ñi te du duñu fay muy loo xam ne wax dëgg yàlla xalaat bu rafet la mu ne comme man nag li ma tax a jóg mooy lu ma fi fekk lu baax dama koy yokk lu ma fi fekk lu bon ma dindi ko comme lu baax la dinaa ko yokk premier problème bi programme bi amoon mooy programme bi muy plan Sésame xaalis ba ci nguur gi fi nekkoon defoon dafa doyul woon lolo tax bu mag ñi fajaa fajoo hôpital bi envoyé facture du ministère de la santé ministère du mën fay ndax xaalis bi doyul président Macky Sall ne budget bi ngeen fekk ñaata la gaay yi ne ko 700 millions mu ne doublé naa ko def ko 1 milliard 400 millions de francs pour le plan Sénégal ça c'est concret c'est concret mu yokkat ko yokkat ko motax tay plan Sésame hôpitaux yi ñu ngi leen di rembourser régulièrement yenn saa yi nga dégg nag ku ne tardé nañu ñaari weer ak yooyu mais kenn du la fay ndax xaalis amul amatu fi benn problème rek moo ci des mooy plan Sésame ci hôpitaux yu mag yi rek lañ koy defee lu mel ni hôpitalu Pikine hôpital Le Dantec hôpitalu Thiès ak yooyu nguur gi nañu nag fexe leen ba mu wàcc ci centre de santé poste de santé yi pour mag ñi nga xam ne mu nga Aéré Lao wala mu nga Médina Gounass moom it mu mën a def ci centre de santé bokk ci ñetteel ba nag jigéen ñee ko moom mooy lan président Macky Sall dafa la gratuité de la césarienne dans les structures publiques de santé Lors mooy lan da nga daan gis bu njëkk koo xam ne soxnaam dafa wara a mucc maanaam war am doom mu jël ko wa keur gi ànd ak soxna si pour mu dem hôpital wala maternité pour accoucher pour am doom mais xam nga soxna siy génn ci këram pour dem wara a mucc ji mënul xam dinañ ko opérer ndax yow da ngay njort rek ne boo demee accouchement normal ngay def waa kër gi egsi ba foofu ñu ne leen ah kii de cas bi cas dystocique la maanaam cas bu garaaw la boo xam ne il faut que ñu opérer ko te waa kër gi juróomi junni la ñu yoroon seen poste wala juróom benn junni wala juróom-ñaari junni ndax dañu foogoon ne accouchement simple la ñu ne ñaata la ñu ne leen quatre-vingt-cinq mille francs fukki junni ak juróom-ñaar te ñoom juróom benn junni la ñor yor seen poste ñu bàyyi soxna ci si table bi yéen soxna yi xam ngeen mucc ni mu méttee soxna saa ngi jooy soxna saa ngi ñaq soxna saa ngi def leneen waa kër ga daw nañu dem kër ga dem ca koñ ba uti ji dajale dajale ñu teg ci waxtu ñu dellu seeg seen xaalis ndeysaan ak seen ñaq laajte ana soxna si ñu ne yóbbu nañ ko morgue ba ndax ci diggante bi bakkanam rot na dafa lu xam ne dafa bari woon ci réew mi bari boo demee ay Goudiri ay Bakel ay Sédhiou ak même fii sax ci région de dakaar da fi daan gis cas yu mel noonu président Macky Sall est-ce que docteur yi nga xam ne dañu waroon opérer soxna soosu ñu ngi fi ñu ne ko waaw est-ce que matériel baa ngi fi waaw est-ce que garab yaa ngi fi waaw bu nous lan mo doxoon suñu ak soxna so suñu sauvé ko ñu né ah famille de dañu amul won fukki junne ak juróom-ñaar muy 85000 francs Nous sommes à partir du 1er janvier 2014 fukki junne ak juróom-ñaar muy 85000 francs nguur gi gàddu nako kenn dootul fayati césarienne ci bép structure publique bu nekk ci réew mi mu dugal ko ci biir couverture maladie universelle bi ci des nak di dialyse dialyse moom day ñi nga xam xam nga nit ki dafa am ci sa yaram dañuy wax rein rein bi day li nga xam ne moom filtrer deret ji li nga xam yeb dafa wara a génn ci deret ji rein yee koy filtrer génne ko nit ki tour ndox mu génn wala mu génnee neneen waye dafa am ñu xam nak sen rein dafa dem ba fonctionné tul bu boba day am poson ci sen biir deret te dañuy faatu ben solution rek la moy ñu defal leen dialyse dafa am machine bu xam dañ koy tek brancher leen ci sen deret dal di jaar ci biir machine bi machine bi segg deret gi nga def ko ñaari waxtu ba pare mën a jox dem mais loolu danga koy war a def ñetti yoon ci semaine bi da nga koy def altine def ko àllarba def ko ajuma trois fois ci semaine bi te benn yoon boo ko defee da ngay fay soixante mille francs fukki junni ak ñaar ana kan moo mën a fay fukki junni ak ñaar ñetti yoon ci semaine bi ci loo xam ne ba abadan la nit ñi dañ daan góor góorgóorlu rek dajale fii dajale fii au lieu nga def ñett nga def ñaar mujjee faatu président Macky Sall ne loolu du yoon Nous avons une ban solution la def je déclare la dialyse gratuite dans toutes les structures de public de santé dans ce pays ñun ñuy liggéey ci santé publique xam nañu wër nañ fu nekk réewu Afrique bu nekk dem nañ fa ci la santé Machallah. Mais mais Sénégal c'est le seul pays d'Afrique au sud du Sahara bu la dialyse est gratuite amul feneen man dem naa Rwanda ñu fa dem dans une grande réunion bi ma dialyse est gratuit au Sénégal le ministre rwandais bi dafa ma woo ba Cheikh est-ce que li nga wax dëggantaan lan la ma ne ko lan mu ne ma Sénégal dialyse c'est gratuit ma ne ko c'est gratuit mu ne man mënu comprendre naka le pays africain di mën a fexe ba gratuit dans son pays Je ne ko mais le président Macky Sall l'a fait dans un pays qui s'appelle le Sénégal dans le cadre de la couverture maladie universelle bi ci des nag moo ñu fi indi tey mooy lan mooy mutuelle de santé mutuelle de santé yi expliqué nañ leen ko expliqué waat simple dañu ne comme ku ci feebar pour nga faju li ngay jënd sa poste dafa bari na ñëpp dajaloo ku ci nekk jël dara ñu def ko ci caisse ku ci feebar kees gi jël jappalé la nga faju loolay mutuelle de santé bañu ñu étude yi nak ñu gis ne pour mu mën dox doomu adama bu nekk da nga wara cotiser junni ak ñenti téeméer manam 7000 francs ñu wax ko président de la république mu ne 7000 francs dafa cher mu ne man xamna sénégalais yi kenn mënu len laaj 7000 francs par personne ndax buñu ñu fukki nit day nek 70000 dix mënuñu ko ñu ne ko président nu ñuy def mu ne nañ ko xaaj ci digg bi ku cotiser genn wàll ma mottali la genn wàll gi loolu moo tax ñu naan la cotisation bi 3500 la mais cotisation bi du 3500 cotisation bi 7000 la dafa fekk boo cotiser juróom-ñaar téeméer président de la république mottali la juróom-ñaar téeméer ci budget état bi sa 7000 francs mat ñu dugal ko ci kees gi boo feebaree li nga waroon fay ñu def ko juróomi xaaj mutuelle bi fay ñent xaaj yow ben xaaj la ngay fay du gis ngeen publicité bi ci télé bi ñom sa neex ak sumbulu expliquer nañ ko ki wara fay juroomi junni ñu ne ko nag boo nekkoon ci mutuelle bi ñent junni yi mutuelle bee koy fay yow junni rek ngay fay garab ya ñuy joxe ci hôpital bi tamit kasaalika. ci walu CMU bama ko waxe fi CMU bi toll ba paré première question bi ma poser daf ma ne est-ce que les maires appuient la couverture maladie universelle waaye bu ma ko laajatee dina ko ne en tout cas day. le maire de Pikine Ouest Pape Gorgui Ndong bokk na ci ñuy jàppale la couverture maladie universelle li ci des nag mooy ñi nga xam ne jàppale nañ leen ba ñu war a dugg ci biir nañu dugg ñeneen ñi nga xam ne yàlla def na mën nañu cotiser nañu góorgóorlu cotiser bu fekkee juróom benni bant la ñoo nekk ci kër gi vingt et un lay doon bu dee juróom euh, dix personnes trente cinq mil même boo ko mënul am ci saa si seetal ñi nga mën a cotiser bu ñu dee ñetti ñent wala juróom nga cotiser leen ba nga mënaat cotiser ñeneen wala ñeneen ak ñeneen mutuelle yi dinañ leen may sax nga cotiser juróom benn weer laata juróom benn weer yi ñëw nga mottali yeneen juróom benn weer waaye waaye nañu góorgóorlu dugg ci mutuelle de santé yi comme ça kenn du fi yi di taxaw ci mbedd mi yore ordonnance daan dimbali leen ci ordonnance ku dugg ci mutuelle de santé doo wax dimbali leen ci ordonnance

élèves ont dañ leen ci de santé avec une cotisation de 1000 francs par élève et par an loolu ñu ngi def atelier départemental. yi nous nous bu ci koor national de lancement de la CMU dans les daara ndax xale yi nekk ci daara yi ci la bokk ñoom te nañ kilifa yu bari bu aussi ci de santé Euh, ñi nga xam ne ay maître coranique la ñu yore daara yi ak sëriñ yi nga xam ne dañ yore daara yi mag wax dëgg yàlla loolu dina nekk njariñ ci ñoom ndax xale bu ci feebarati du ñu amati problème pour faj ko lii mooy li nga xam ne moo tax ñu ñëw fii tey pour indi message bi pour wax suñu mbégte di leen gërëm di leen sant di wax monsieur le maire encore une fois merci te di wax na nag maire boo taxawal ak boo taxawal ci naata sa ndaatagoo yi waaye waaye waxal ak moom pour ñëpp roy la def ni nga xam ne noonu ngay def lolu buñ ko défé dina dox mutuelle de santé yi nañu continuer mobiliser wu amna ñu fi jox ñi ci ëpp sax fi ci Pikine lañu bok bokk tuddee bop les volontaires de la CNU Malal Diallo Piki jiite leen ñom né nañ dañu bénévole lu and ak mutuelle de santé pour dem mu am fii ay programme yu am solo yu melni apte Associate ñoom it ñu ñuy jappalé Sengaan and ak ñom lolu yëpp buñ ko bolé inshallah rabbi dinañ egg ci kanam té lolu moy plan Sénégal émergent natangé lañu wax naataange fi muy tàmbalee mooy wér-gu-yaram yàlla nañ ci yàlla dimbali ba ñu am ci ndam lu réew lu xam ne benn réew amu ko incha allah rabbi bu boobaa dinañ xam ne lii fi président Macky Sall indi dëgg la te loolu moo yóbbul Sénégal ci kanam maa ngi leen di gërëm